na yàlla def barke ci sëñ waaye Mufti Amadou Gueye Fifty na leer moo di cër bi li tax ma ko doon waali fekke ko mooy ku am waali xam si ko ah, ci man mën a jëkkee nee na ci moom la jëkkee Amadou bi ñoom ñaar ñooy xarit ànd ànd yàlla moo waral kër bii mu ko doon li def dara mu fekke yàlla yàlla def Youssou Thiam ana Youssou Thiam waa teew Aliou Youssou kaay Youssou teg waaw mi ngi nii mi ngi nii waa lay ngoog waa lay ngoog baal leen na de trente soose baal leen na de sunu xaar yàlla moo koy dogal na ñëw rek moom directement na ñëw rek moom directement. c'est ça la réalité. c'est ça la ndax sax yaa ko jàppale yaa ànd moom ba dara dara doyal ko ànd moom ànd bu sincère yal na yàlla guddal sa fan. alaaji ma ko war naa ñëw mais kii mooy magam mooy kilifa. diggante mooy seex ñëpp xam nañu. seex dafa ànd ak moom ànd bu rafet. jërëjëf alaaji ma ko dégg. dama bëggoon xam kilifa yi ñëw ki ñëw xam nañ mooy kan. Ah, waaye day kenn koo xam ne. ma alaaji ma ko dégg may ma rek di jënd Seydina Muhammad. jërëjëf alaaji ma ko dégg. waaw góor Pape Demba ak góor waay. jar ngaa xaar de. Ah, Seck. nee ma tuuti rek. dañu kenn ku def gàncax loolu. loolu nag dafa am lu ko war. mooy kii fi indi Cheikh ci Ndakaaru bii. waaw. Ah, ku fi gis nga. kilifaam di taawu yaayam. mooy. buñ kenn def dara. te waa ji waaye nag nee na loolu amaa mu am seen diggante ak Cheikh seen diggante ak moom lu jot suñu borom mooy dogal cër yi su fekkee ne am na kàddu yoo ci sànni ñu jox lan nga si tuumal bi doon soo amee nit ñi dana leen tasaaroo leen ba nga dem bàyyi leen waaye lii mooy wan yow mi la àndal def la leen loole tasaaroo leen. nee na Dramé kaddu yi kaddu tuub la nee na moom dafa fanaane liggéey guddi gi nee na mi ngi tuub. nee na waaye daf fekk ay nawle ku fi mel ne Amadou Gueye Fifty nee na frère la nee na yow yaa ko may chef nee na yaxam naa la laaj te boo ba léegi chef bi ci yoon bi baax baax li nga xam mënul seen maam. di bëri yaa ko xam kan mooy Rasulullah mu di sëtu sëñ Bàmba yi di boobu sëñ Abdou Karim di sëñ Mor Moussa nag sëñ Fallou nga toog di sëtu sëñ Ba nee na yow yéen ñëpp ngeen def seen wàcc nee na nag di yéen gorom yi ngay may soxna nee na ngeen di gërëm di leen baal wax nee na di kontaan ci ñi fi ñëw ñëpp ñaan yàlla suñu borom sëñ bi dafa kii la mooy mbisa kii mooy kilifa kër gi waaye ñu fàtte àq ca morgue ba ca hôpitalu Fann ak ci dàkk ja CI bi baax ja def na fi mu nekk nee na bala mu ca morgue ba la mu def ca hôpitalu Fann mi ngi nii moo doon intendant wu hôpitalu Fann mi ngi nee na li ngeen ñaan yàlla yàlla na ko yàlla fay. ren bii mën na ko na jël sa soxna yow. sa soxna. def sa iral. ndax kenn séenu ko fenn kenn déggu ko fenn. madame Waly Seck kenn gis déggu ko fenn kenn gisu ko fenn te nee nañu. yaayu xarit ba moo wax yow te soxna moo gën bëgg Cheikh Cheikh kon ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom moom fu mu teg tànkam yàlla na fa suñu soxna si teg tànkam yàlla doon jàmm ngeen baal na ah ah les lii yaa ko moom béy béy tukki di doon ci sànq ah kon waaw wax loolu. maa ngi. yoon la nekk. moom moo ñuy may moo ñuy moo ñuy wax. waaw may d'accord nañu waaye kaay ñu wax. ayca ñu naan. eh Ismaïla kay kii nag la doon xaar bàyyi leen nga xam kii la doon xaar jégalu bu baax a baax jégalu bu baax Thank you. par la force. amiin ya Yàlla barke seen barke Seexul Xadiim amiin ya rabbal nangu leen ñaan fooy kan nangu ñaan Thank you.